une yéene kaay ne booba président Macky Sall moom ma ngay góorgóorlu ngir nee na day wàññi ay waaye nag ca terrain ba gisuñu lu ni benn njëg nag moo wàññeekuwul sénégalais yi mën nañ ko seede vox populi ne jaaykat yi ci boppam ñoo koy seedeel seen bopp ñoom nee nu wàññiw nu tey wàññiw nu ëllëg nguur gi nag moo wax askan wi day wàññi fekk nag ca seen pegg ñoom dara wàññeekuwul kon nag nguur gi la mu dig askan wi te mënta nekk na ko jëfeek askan wi waaye du seen bopp la ñuy reyee teeñ woo xam ne ay ndel la ñu def amuñu karaw ñoom borom boutique yi ne mënuñoo wàññi ceeb mënuñoo wàññi dëwlin mënuñoo wàññi suukar na leer tribune yéen kaay jox kàddu bugaan gay dani ci jokkoo ci ñel président Macky Sall ak ndaw Sédhiou yi mu xam le ni naxee mbaay rek président Macky Sall daal lu dul naxee mbaay dëkkeewu ko ak askan wi ay diggé yoo xam ne naxee mbaay France daal di xiddeem situation bii sénégalais yi nekk wane na ni dëgg dëgg Macky sàll dafa tële mu bëgg mu bañ waaji tële na ñoo ngi ñuy nag wan ay tali du ñu wan ay stade du ñu wan infrastructure yoo xam ni président dugal na ca loxoom waaye attention bugaan gay dani ne ñetti junniy milliards askan wi war nañu koy fay ci bor yoo xam ne moom Macky Sall moo ko leb ngir defaral nu te bor yooyee daañu ko fay ba mu jeex tàkk lekk dërëm duñ ci dese gëm sa bopp ne ndaw yi yéen a nga ca te bu leen bàyyi benn yoon ndax réewum Sénégal dafa mel dañ leen fàtte diggante 1960 ak 2022 loo wax di wax di boo gisee nen ni nen a ngi bugaan ne dara yokkunoo joote lu dul na ker gi nga xam ne gis nañ ko ci administration bi vox populi jokaddu waa frappe ñu daal di naqarlu maa tey gi nga xam ne suñuy autorité moom lañ dëkkee jamono ji nga xam ne askan waa ngi sonn lool ndax ku ne sénégalais sonn da ngay nelaw xiif nañu mar nañu sonn nañu Sénégal waxtu woowu nga xam ne njëg li seer na lool waxtu woowu nga xam ne askan wi tële nañ ko lu ñu ko jëndee waxtu woowu la ne dañuy jëlee député yi téeméer ak juróom benn fukk ak juróom yóbbu ko ci téeméer juróom ñaar fukk ak ñaar bu doon ay député yu ko jar sax député yu réewum Sénégal gii mar day taali ñaar ña moom nga xam ne jàppee nañ leen passeport diplomatique daal dinañuy dàq seen audience ba ñaar fukki fan ak benn ci weeru avril waaye du ñoom dong ñoo nekk député yoo xam ne daal dinañuy gàcceel fal nañu leen yokku député ndax jar na ko ndax fii ci Sénégal député yi nekkee woon fi lu dul trafiqué ay visa ci ñenn ñi defar ay faux billets ci ñenn ñi ñu leen di tuumaal ay viol ci ñenn ñi ñuy tuumaal ñenn ñi ne dañoo sàcc alalu askan wi sénégalais ci boppam moo faf découragé ci député waxtu woowu ñu ñuy ronki day le témoin yéene kaay ne ñaar fukki at a ngi nii ñu war a ndàmp waa dem si yàlla air Afrique mu të te kenn waxul bal tàkkul sagar xeeñul le quotidien le quotidien ne boobu day wér gu yaram moom ma nga urgence santé ci boppam la ñuy perfuser ci réewum Sénégal sud quotidien ne ma demal ba centre hospitalier ba nekk sa Ourossogui gi moom moom ña ngi koy tembe ndax nag diggante sud saas la ak ba ña ngay ba mar day waa frappe ci vox populi ne déggu ma de lu mbir yi tartar bu leen fàtte mukk ne assemblée nationale war nañoo yokk député yi libération yéene kaay ne assemblée nationale voté nañ ab loi de muy permis à point yi daw ndànk dal ndànk lu ko mooy ñu nangu sa permis l'observateur n ma ni ki démb day président Macky Sall daal dinay daje ak gaay yi nekk ci daara yu kawe yi ñu waxtaan waxtaan wu am solo ci itam lépp loo xam ne def na ko moom président Macky Sall ci daara yu kawe yooyee vox populi daal di may xamal ne Macky Sall day daal di nay yàggaayu daal di wane nag lépp loo xam ne ak jéego la mu def ko ci yooyu le daara yu kawe Macky Sall xamal leen ñoom ñi nekk ci daara yu kawe yi ne leen yéen a gouvernement gi day mën ngeen xoggaligu yéegali mbagg ndax nag am ngeen bilan boo xam ne dëgg-dëgg mën ngeen cee bég Cheikh Omar Anne mi ñu dénk njàng mu kawe mi ne ko yow président Macky Sall yaa tax ñu ñee njàngum Sénégal ci dénduk Afrique bi yëpp source anema moom kay Macky Sall dafa jaaree daal di day taali Thierno bu njum mi suuf su aane des leen ak man ma xamal leen ni nag dëgg-dëgg ñàkkub gaz bi nga xam ne woote nañ ko ci réew mi ndaxee mbaayi dong la gaz baa ngi ci réew mi te fees dell ñàkk googee day jeex na tàkk l'info yéene kaay moom a ko daal di xamal moom daal ñëpp ko tufli total mu daal di tooy xepp daal di bàyyi la mu dencoon booba source am ak may xamal ne Cheikh Omar Diagne day daal dinay fanaan guddeem gu njëkk ca kaso ba ni ki démb lañ ko daal di defeere Dakar Times ne defeere wuñ leen waaye guddee nañu mu di ay nappkat yoo xam ne ba nekk nekk ca ndar géej juróom-ñaari milliards lañ ca daal di def terewul mool yaa ngi cay wéy di faatu yéene kaay bi ne Alioune Ndoye na génn wax tribune yéene kaay ne Mamadou Badiane day wax na ci wàllu politique moom coordonnateur départemental bu grand parti daal nay xamle lu jëm ci parrainage bi ak itam dellusiwaatu yeewi askan wi fukki atuk bi nag Macky Sall daal na cay àddu ne Macky Sall day discours am bi lu mu insisté ca la yàgg insisté te gisuñu ci saafara sonn nañ ña sonnul Tidiane le quotidien le quotidien ne ña signalé Russie daal di koy génnee ci mbootaayu xeet yi Sénégal bokk ci libération yéene kaay ne ma lii moom du mbootaay ak film la dinaa leen nettali nag ne Sénégal am na Casa de Papel yéene kaay bi ne ma ay defkatu ñaawteef lan yoo xam ne dooree ci Ndakaaru jaaree ca Touba jëm ca Pire fu ne def nañ fak attaque ñii ña nga tudd Ndakaaru ca ñoom ñeneen ñi Medina ñeneen ñi Kaolack ñeneen ñi Colobane ay turu quartier ki wil lañu jël ni Casa de Papel tuddee seen bopp la OMS daal di xam ne ni téeméer boo juróom benn fukk yi ak juróom ci dénduk Afrique am nañu coronavirus ñaam coronavirus ëpp nañu juróom ñeen fukk ak juróom ñaari yoon kaa yi nga xam ni confirmé nañu leen ñu déggee ko noonu te yendoog jàmm mbokk yi jaajëf ci loolee sax la ñu nar kepp bi la jotaay xibaar jaajëfal leen bu baax ci teelu bi kon Yacine ñu wàcc ci tali bi. Mm-hmm. ndax papa lay ñëwaat.